Matthieu saa juróom amee Yeesu wàcc ca tund wa te mbooloo mu bari topp ko noonu ku gaana ñëw sukk ci kanamam né ko sang bi soo ko bëggee man nga maa faj Yeesu tàllal loxoom laal ko naan bëgg naa ko wéral ca saa sa ngaanam daldi deñ yéesu ne ko déglul